waaw waaw Khadim gis nga Gris Bordeaux mi taxaw moment bii lu nekk lay xañ na si moment bii ñu nekk ci kër gi di du ñu mën tey seen bopp yaayu mbër yi wala papa mbër yi wala moment bii ñu mën tee bopp xool ma perkat yi am na lu mu jox giri am na lu mu ko jox ni nga sottee kooko loolu sama sëñ bu nekk bi sa Arabie Saoudi moom ma ko jox euh, cey bi lamb Gris Bordeaux mi ngi wax ak ji nee na ko Maodo xamal ni kii moom a daanoon tey nga ñëw war rôle le tafi bi jël sa temps Maodo nee na ko waaw tourné woon ko ginnaaw yëkkati tribune bi ñu jug leen Maodo nee na tribune bi jug leen nee na kii dama loolu la Maodo wax waaye Maodo defal daanaan la daa mën bëre daa xam lamb moom Abdou Diouf yàgg def waaye sama. papa sama xarit sama sëriñ sëriñ Cheikh Ba mi ngi foofu nga xamante mooy Sibi Xotaan euh, sama papa sëriñ Cheikh maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di borom xam-xam di nit ku yàlla baaxal nit ku yàlla may yàlla sa jàmm yàgg di nuyu waa Sibi Xotaan yëpp waaye Xaadim gis nga ki mooy Gris 2 mi ngi si géew bi Abdou Diouf mi ngi si géew bi kee béykat yi indi kee roon na indi. ñaari mbër yeeg géew bi arbitre bee ngi waaj a sifflé ñu ngi def seen dernier réglage ñoom ñaari mbër yi Gris 2 la oh, Fass la jógee Gueule Tapée Ndakaaru moo war a jàkkaarloog Abdou Diouf waalo waalo bi waa ñiije ka tar waa risaato la ka waa gaaya ka tar na kànnaar moom Gris 2 rek ay waaye Abdou Diouf waa ñiñe ko tar waa xënd ka tar waa jawaara ka tar waa tagana ka tar waa boqala ka tar waa waa waa njaarema ka tar waaw ñu ko tar bëri na su may lim waalo ko tar yi bëri na defet la jógee eh, Gris 2 si defet la jógee ñoom ñaar lamb ji moo di téye moo leen di tegaat si seen yoon wala lamb ji delloo leen ginnaaw lu mën a am ba mën a ju neex la Lac de Guiers dafay ne sa langa cee Xaadim xoolal ma dafa mel si Abdou Diouf la jëm Gris mi ngi wax ak rakk ji Lac ngi woo mag ji wax a am ba mën a am Gris door na loxo bi. ni ko confiance rakk ji dama jële li nga moom indi ko waaye nag woon na magam tëdd filam mu ngi wax ak nee na ka Abdou dafa nank de xale ngay bëreel nga teey jël sa temps nga bëreeg si combat distance bu def mel kooku combat rapprochement jëlal sa temps loolu la ko Lac de Guiers di wax waaye kee waalo waalo la kee ndoomu Ndakaaru la. wala wala waatu doliñ waa ñiit waa xamda waa jawaar waa risa tool waa tagana waa boqal waa gaaya ñoo dara Abdou di waalo waalo waalo yi dañuy set waaye giri ngay jàkkaar lool giri tawa ngi noonu eh, forme bi macha allah Abdou forme bi macha allah perkat ah, am na lu muy di ko fomp si giri arbitre bi nga xool moom giri tawa superviseur bi mi ngi koy xool moom Gris 2. wala wala yooyu dajeeg tey Ndakaaru giri ne naka kaay ñu bëree waaye giri lu mu guddi guddi Abdou fekk si géew bi giri bul jàpp ne yaa mën Diouf de giri giri ba sa combat giri giri man ngay bëral waaye daa expérience si làmb giri ki ngay bëral daa mën xeex te daa mën bis wul la ngoog waarante DKR rajo ñu woo la 25 ay wuli yaa ngi sa combat tey lu waral sa teewaay muy kat. combat. mais danaa ñëw pour samp wala pour lan. ah danaa ñëw pour samp wala danaa ñëw pour. man ma am lu ma doy sëg di samp. koo am lu ma doy lan moo doy. Adama Diouf. Adama Diouf ma gis keroog. doy na ma sëgal mu wax ci Adama ne. mais dégg nga rek saa bu ko jëlee daf koy def rek. waaw waaw. combat bu rëy daal la baaxoo na. la koy sëgg dina neex de. sëy <laughs> wul ne ngoog. wulli wulli waat. nee na daal combat bu rëy la. waaye xarim daa mel ne kii bi taw premier rek. nee na nee na Abdou Diouf. ñoo ma agressé la damay ñibbi waa Dakar nag waaw ak waala waala yi ah waala fu la maa ngi nuyu Gris Bordeaux numéro 1 di magu Gris 2 di nuyu Lac de Guiers 2 di nuyu waa Dakar écurie Fass Walo Guédiawaye Gris 2 la ak Abdou Diouf Abdou si géew bi mu fas da ngay takk wala da ngay sànni wala ko bëgg a def mi ngi noonu Gris mi yàkkamti de Abdou ngàlloo na fas bi ci loxo càmmoñ bi abi be ngi wax ñoom nañ leen saako yi fekkiwul kenn door suñu bopp amul si nga mooy boole te mooy li diggante Gris 2 combat bu nar a la Mbaye Diop Mbaye combat bu nar a gaaw la ngi nii maa la wax combat bu nar a gaaw ngi nii maa wax de waaw gi diggante Gris 2 Abdou Diouf. dañoo nar Tóoram Motor. dañoo nar Tóoram Motor. la ko waaye maa ngi nuyu sama yaayu bopp euh, sama tataawu bopp madame Fidir la maire tata Keltoon Gaye maa ngi nuyu Gaye Nioro. Tata Kalto maa ngi di nuyu sa yaay di nuyu sa yaay rek sa frère ak say sœur kookoy chéri si Amady Yane Cissé moom Tata Kalto jigéen bu mën góor la après femme admissible na grand combat Girito Abdou Diouf Girito la jëm si Abdou Diouf lu mu fay fekki Girito ñu wan ginnaaw Abdou ñu wan kanam Girito ngi toog si kanam round d'observation nee naa la ñaari mbër yi combat bu a gaaw la Abdou na Gris dox na jëm si kawam seera gardam waaye Abdou arrière na ñaari mbër yi ngi lewto Gris dox na door na ko Gris door na ko touché na ko eh, combat bi day gaaw Gris Abdou Diouf Gris lu mu koy ñu mu demee la wala Gris nga xamante ni mooy jeunesse daan ko moom Gris daan ko Gris 2 daan ko. xarim xarim gis nga sa waay dafa jaaxle na ko kañ tam dafa jaaxle oh, Gris 2 mu ngi taw Gris fu Khadim Gris fu mu jëm loos na jëm de ne woon naa la bu ñu jàppante avantage Gris doo la wala bu ñu xeexee avantage Ndiouf la Gris ko wasi xeex xeex bi dugg si moom mu doo jàppante ak moom daan nga jëlee wu rëy Gris Pape ne la xool sedd na ne la xool sedd na Khadim ne la xool sedd na Pape Sarr mbiru prix bëriwul waxoon naa ko Pape Sarr mbiru prix bëriwul tooñ daan intéressé bu doon fooye combat bii ngi jégalu waa Fass gisuñu ma kontagu ma defu dara parce que dama dama dem ba jege si ma am ma feebar ñu ñu la bëree ñu bëree bu dara yaakaar am Hadi bir